waxtaan yi nga xam ne moom la daari muqaddamatul xidma di dundale weeru koor yi tey nag di benn jataay jataay yooyu jataay boo xam ne yaakaar naa euh, dina war a am solo lool ngir li ñu fi fas yéenee waxtaane ak it kiñ ko nar a séqal mu fas yéene ko waxtaane ak ñun euh, ñu war a waxtaane tey tomb bu am solo muy suñu sëriñ bu baax bi Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu ak téere bu sell bii di alquranul karim nan la sëriñ Touba radiyallahu anhu jàppe woon nan la sëriñ Touba fonke woon alquran waaye itam nan la sëriñ bi bàyyeewoon xel bu baax a baax def yitteem ci ñi nga xam ne ñoo jonjoo ak téere bu sell boobu kon yaakaar naa tomb bu mel noonu buñ nee moom la ñuy waxtaan di ko waxtaane fii ci jumaam ju tedd ji muy jumaay Tuuba kon mbir mi dem na ci barabam ñu séq ko nag ak jëmm joo xam ne yaakaar naa bu ñu waxee aw turam rek doy na sëkk ci ne war naa waxtaane tomb boobu muy sëriñ Khady Diakhaté sëriñ Xaadi Jaxate yëngoom yépp mi ngi jëm ci alquranul karim di ko jàng ak di ko jàngale kon bu dee waxtaane tomb boobu itam euh, lu am solo lay doon bala ñoo tàbbi ci waxtaan wi nag ndax li ñu ñàkk ci ay minit dafa xaw a bari ñu leeral tuuti ci kan mooy jëmm ji nga xam ne moo fas yéene séq ak ñun jataay bi sëriñ Xaadi Jaxate mi ngi bokk ci doomi dëkk bi ni ma ko waxe woon léegi di jàngalekatu alquranul karim waaye mi ngi jëkk a jàngee alquranul karim ci loxoy waay juróom bu tedd wu ñuy wax sëriñ Cheikh Jaxate Tindodi moo ko jàngal alquran jàngal ko itam lenn ci xam-xam xam-xamu diine naka noonu itam ci borom xam-xam yu dëkk bi yu baree bari jaar na fa comme ni ko ñu bari di defe waaye ay yëngutoom jamono yii nag mooy jàng alxuraan ak di jàngale alxuraan ab sëriñ daara la bokk na ci itam di bokk ci ndaje yu mel nii di ay waxtaani diine waaye itam ay yëngutu yu jëm ci wàllu xam-xam dana ciy bokk moom itam bokk na ci ay mbiram mooy moo jiite rabitatul madarisil islamiya wala madarisil quraaniya muy mbooloo mi nga xam ne moo lëkkale ñiy jàngale alquran ci biir Touba moom moo jiite fara bi nga xam ne moo nekk Touba mooy secretaire général bi kon euh, sëriñ xaali moomu moo fas yéene séq ak ñun jataay bi ñuy fàttali mbokk yi ne nii lañ ko fas yéenee jàppoo ba diirub weeru koor wi jeex bis bu ne ak tomb bi ñu war a jàngat moo xam ci wàllu fiq la moo xam ci ay fatawa la di ay laaj ki tontu moo xam daa nekk ay tomb yoo xam ne dañoo gis ne dafa yitteel askan wi ak mbokki taalibe yi ñu war ko séq ak ñoom waxtaan yi nag mën nañ koy topp ci internet bi ci sit internet bi nga xam ne moom la jumaay Touba ji moom muy www point mosquée touba point org képp koo xam ne bëgg ngaa topp waxtaan wi en direct ci biir réew mi ak bitim réew mën na koy euh, seetaan foofu euh, naka noonu itam yeneen site internet yëpp yu ci mel ne Murid TV moom itam dana ko jàllale en direct waaye itam ci tasukaayu xabaar yi itam dana fa jàll euh, bu waxtaan wi jàllee incha allah dañ ko fa tegaat kon sëriñ xaali ngir njëkkanteeg waxtu wi rek ndax tomb bi ñuy waxtaanee dafa am solo te yaatu kon dañuy jël kàddu gi rek jébbal ko sëriñ xaali mu tàbbi ci waxtaan wi aousu billahi min alsheytaan arrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina moolana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wax xadimihi wa ummatihi ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ndokkeel di leen baluwaq di leen balaq di ñaan suñu borom mu boole ñu baal di jiital ci loolu yépp sëriñ Tuubaa Seex Sidil Muxtaar di ñaan suñu boroom mu guddal aw fanam yokk ak wéram ak mbooleem njabootu sëriñ bi mu ko àndal bu ñu neen njaboot gi nag dong yaa ci biir ñaan suñu borom mu nangul ñu suñu koor ak suñu jaamu yépp di sant nag bu baax a baax daaira muxaddamatul ma ci jataay yu am solo yu mel nii muy taxawal di dundal weer wi di dundal dëkk bi ci xam-xam waaye ci ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi bëggee woon kon ñi leen di ñaanal suñu borom mu gën leen cee kàttanal eh, bari lit ñi leen ci roy mel na ne macha allah fi ñu toll nii barab yu bari ci dëkk bi ak sax ci bitti dëkk bi ñu ngi ciy roy te xam nañu ne fii la tàmbalee fii lépp lu fi tàmbalee amee ci yaakaar yàlla na ko suñu borom saxal ci barkeb borom eh, gannaaw loolu eh, ni ko sëriñ bi waxe tey mawdu bi nga xam ne moom la mbokk yi tànn mooy asayxul qadim wal quraanul karim muy diggante sëriñ bi ak alquran loolu du diggante bu yaatu bu yàgg bu fees dell ak i solo boo xam ne euh, lu nekk ngi ci biir ñaan suñu boroom mu kàtt kàttanal ñu ba ñu mën cee génnee lees mën a jariñoo kon lu tax ñu wax ne diggante cheikhul xadim ak alquranul karim ku ne xam na ni loolu suñu ko waxee dañuy dellu ci alquran ndax alquran moom la suñu borom wàccee làmb ci biir dunduk ab jullit ba mu jeex takk dara desul su boobaa kon képp ay képp kuy ab jullit warees naa mën a wax sa diggante ak alquran xanaa kay kon ràññiku gi ci seexul xadim ràññiku taxawaay bu mat sëkk bu wéet bi mu ci def moo tax deesi ko ber di tudd tey lu am solo ndax barab bii ñu nekk moom lañu fi topp moom lañu fiy déglu kon lépp lu ñu bëgg nit ñi fonk ko suñu leeralaatee ne sëriñ bi fonkoon na ko rek doy na sëkk dafa mel ne jërut ñuy woo nit ñi naan leen bëgg leen nangam wala bañ leen nangam waaye nañuy waxtaane ne sëriñ bi kat bëggoon na nangam wala bañoon na nangam kon ñi bëgg sëriñ bi ñoom dañuy daal di xam ne loolu lu mat a bëgg la wala lu la jàpp naa ne loolu moo tax mbokk yi tànn loolu alquran moom la suñu boroom wax ne mooy buumam gi nga xam ne moo bàyyi ko ci moom wàcc ci suuf mu séq ko ak jaam ñi te loolu rasulullah sallallahu alayhi wasallam seede woon ko ci jataay bu mu fekkoon lenn ci saxaaba yi ñu toog mu ne ndax seede ngeen ndax gëm ngeen ne yàlla yàlla am na ñu ne ko waaw mu ne ndax seede ngeen ne yàlla ma yónni ñu ne ko waaw mu ne kon nag alquraan a ngi di ak buum goo xam ne cat laa nga ca loxob suñu borom cat laa ngii di lang su ngeen ci jàppee siq ko ak seen boroom kon muy xablullahil matin di buum gi lëkkale asamaan ak suuf di buum ngi lëkkale buur bi ak jaam ñi suñu boroom wax ne maa farat naa fil kitaab min amul dara loo xam ne bàyyi nañu ko lu dul ne def nañ ko ci téere bi kon lépp a ngi ci biir ginnaaw lépp a ngi ci biir nag kon mbindeef mu nekk sa lépp a ngi ci biir bi lépp nekkee ci biir it moom suñu boroom tabaraka wa taala mu digal yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko fastamsik billasi uhiya ilayk innaka ala siraatin mustaqim wa innahu la sikrun laka wa li xawmika wa sawfa tusaluun suñu borom tabaraka wa taala digal yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko na nga ba mu dëgër jàppal ngoyal ba mu dëgër ci lii ñu wàccee ci yow muy alquranul karim ndax kat jàpp ci ak topp ko mooy tax a nekk ci aw yoon ne ko it nag na nga xam ni ëllëg e, yaag sa gaañi nu ngeen ci taxawee nu ngeen ko jàppe seen borom dana leen ko laajaat nu ngeen ci taxawee nu ngeen ko jàppe seen borom dana leen ko laajaat kon suñu borom tabaaraka wa taala digal yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko téere baa ngoogu jàppal téere baa ngoogu moyal ba mu dëgër téere baa ngoogu jëfandikool ay ndigalam téere baa ngoogu wattandikul ay tereem moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu defe ko noonee ko ko boromam digale woon defe ko nag ko borom digale moo tax kera bi ñuy laaj sayidatuna aïsa radiallahu anha ne ko yonent bi sallallahu alayhi wa lan mooy jikkoom mu ne kaana xuluquhul quraan moom day jikkoom moo doonal alquran ndax lépp lu alquran doon digle mi ngi koy def lu alquran doon tere mosu koo jege fenn kon kaana quraanan yamsi al ard kon alquran ju doon dox la woon bi mu ci nekkee loolu jëmbët loolu it ci saxaaba yi yàlla na suñu borom dolli ci ñoom seeni leer diirub bi muy ànd ak ñoom téere bi di wàcc téere bi di wàcc téere bi di wàcc boromam wëllëranteeg moom ci ne ko moo koy sàmmal waaye lim ci man lépp moom it na ko def mu nekk ca loola diirub ak dundam ba ci mujjug dundam ci mujj ci at yi mujj ci dundam suñu borom di yebal jibril mu dikk ci weeru koor di ko nafar ak moom bu jibril jàngee yonent bi jàng yonent bi jàng jibril jàng alayhim assalaam ba ci mujj li mujj gi ci ajatul wadaax yonente bi sallallahu alayhi wa sallama ngir rekk téere bi itte ji mu ko jox ak solo si mu ko jox ak bàyyi xel ji mu ko bàyyi xel mu def ajatul wadaax def xutbaam bu gudd boobee tënkaat fàttali bu baax a baax a baax a baax dellu siwaat ci ndigali téere bi di tënk di fàttali di tënk di fàttali di tënk di fàttali saa bu demee ba yaram wi tàng mu jàkkaarloog saxaaba yi jàkkaarloog mbooloo bi ne allahuma hal balaxt moo ndax lii sama borom wàccee woon ci man te sant ma ma jëfe ko waaye sant ma it ma jotal ko ndax jotal naa ko waaye ku ne xam ne ne eh, mbooloo mépp la ñu maase woon di ko seede mooy xamal ko ne ko yow day li la waroon lépp ci téere bi def nga ko jëfe nga ko ci sa jëmm waaye digle nga ko jotal nga ko kon day yow wàcc nga mu ne kon nag alhamdulilah gannaaw ba sant yàlla ba noppi ne fal yuballiqu saahidu minkumul xaayib kon képp koo xam ne ci yéen teewe na jataay bii nag na ko jotal ka ko teewul wax jooju di wéy ila macha allah sahabatu rasul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tàggoog ñoom ci xajjatul wadaax yàggul dara mu daal di dellu ila jiwaari rabbi saxaaba yi ñi ci ëpp daal di laxasaa yu fas yéene loolu yonent bi waxoon ne ku teew na jotal ka teewul ñoom it ñu jóg ngir jot li ci téere boobu daldi di sóobu goxi suuf yi wet bu nekk ab saxaaba jëm na ca ba fa gën a sori ci peggi suuf yi tey ñu di ko door a découverte amul benn barab daanaka lu dul ne ab saxaaba àgg na fa wala ab taabii àgg na fa ngir rekk di jotali loolu kon ñoom it ñu jeexal ci seenu dund ku ne xam na taxawaay bañ ci amoon farlu gu ñu am ak xam gu ñu ko xam moo tax moos euh, ci jamono Seydina Ousmane te sax proposition ba jiitu na ko ñu bind alquran ngir bëgg mu sax ngir bëgg mu ñoŋ ñoom it def seen wàll ci loolee la yonent bi sax alayhi wa waxoon ndax xamoon nañ suñ borom li mu wax dana ko def muy inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafisuun waaye ñoom it la cay seen warugar muy jeexal ci seen doole jeexal ci seen kattan di ko dund di ko jàllale ñoomit war na leen ñu taxaw ca taxawaay yooyu di ko def ci tënk rek bi loolu yi am muy jàll ba agsi ci suñu jàmbaar ji suñu sëriñ cheikhul xadim radiallahu anhu mu yër téere bi xam ne mooy téere boromam ba moom la suñu borom tabaaraka wa taala digaloon yonent bi sallallahu ne ko ngoy ci moom la suñu borom digal yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko ngoy ci fastamsik billasi uhiya ilayk na nga ngoy ci téere bii nga xam ne moom la ñu wàccee ci yow te Cheikh Abdul Ahad radiyallahu anhu dafa waxoon ne nañu ngoy ci Serigne Touba daal di leeral lan mooy ngoy wax ne ngoy mooy jàpp ci loo xam ne sa itte jëpp da nga ko cay def mu gën a la lu ne mu wóor la ne soo ko baa mu rëcc te bu rëccee nga yàqule wa ilaa nga jàpp ca nga mooy ca mooyin woo xam ne soo ko baa daanu lu la ñor ba boo ko rëccee jàpp ba bu la rëccee nga jàpp ne dana da nga yàqule soo koy téye da nga koy mooy loo xam ne soo ca jàppee boo boo rëccee jàpp ne danga yàqu boo koy téye da ciy mooy daf ne woon noonu lañuy ñuy def si Sëñ Tuubaa loolu nag mooy al istimsak mooy nag mooy kon mooy jooju nga xam ne moom la suñu borom tabaaraka wa taala jëfandikoo bi wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko Sëriñ Tuubaa gisee moom it moom moom la jëfandikoo ndax masaktu bil qur'ani abdan lil ali wa yaqini dayrayni bil xayrayni nee na man Serigne Touba masaktu bil qur'an suñu borom daf ne fastam sikk mu ne masakt jàpp ngoyal mu ne ngoy naa ngoy naa ci téere bii di alquranul karim di jaamu suñu borom tabaraka wa taala te boolewuma koog dara ba suñu borom e, fegal ma lori àddina ak alaxira waaye it defal ma njariñal àddina ak njariñal alaxira mu mel ne kon bu waxee loolu rek jàll te li ëpp ci mbooloo mi koo gis mi ngi nab nabi ci alxuraan te munta am loolu des na ko laaj kon nan la ci jàppee nan la ci ngoyee ba tax mu mën a am loolu bañ ko daataan laaj mu indil ko boppam wax ni mu ko defee ba tax mu dikkal ko loolu maasikan bil kitaabi maska dariri bi yadil xaaidil basiril muini nee na kat su ngeen gisee ma am ci téere bi lii li tax mooy dama cee jàppe na ma ci war a jàppe mooy silmaxa bu ñuy wommat mu ne ci pom yoon wu jaar ci digg géej fu mu jadd dal di loru ñu wommat ko mu jàpp cib tum noonu mu jàppee ca noonu mu toppee ka ko wommat jàppee ko ca tumba nga xam ne du wuteeg moom ci ndeyjoor wala ci càmmooñ du wuteeg moom ci genn nee na noonu laa jàppee ci alxuraan moo tax suñu borom defal ma ci lool yi kon wane na naka la dee si jàppee ci alxuraan kon moom ci boppam mu jàpp ci alxuraan jàppee ci noonu yi jël ak dundam yépp jëmale ko ci di ko jàng di ko jàngale di ko jàngalu di ko dundal di wax ne moom rekk mooy téere bi di wax ne moom rekk mooy téere bi loolu nekk lu rëy lu am solo loo xam ne bu ñu ko seetloo ak fonkeel mënu ko weesu li ma bëgg a wax mooy Sëriñ Tuubaa alxuraan rekk la jàppe woon muy ab téere alxuraan rekk la jàppoon ne mooy ab téere moo tax mësul ne kenn nu mu def ak téere bi nga naan ko ban téere ci misaal bi mu bi bi bi amee mag mu ànd ak doomam ñëw di ko nuyooleeg sëriñ bi doom ja toll ci war a nekk ci daara sëriñ bi di ko laaj nu mu def ak téere bi def ne ko mbàkke wattu na ko de waaye nekku fi ko ban téere sëriñ bi kum ne woon nu mu def ak téere bi dangay xam ne alxuraan rek la wax moom rek la jàppe muy ab téere kon téere bi rek moom rekk la jàppe muy ab téere alxuraan la jàppe woon muy ab téere ci la nekk ci la jeexaloon ak dundam di wax suñu borom tabaraka wa taala ne ko nanga ma def ma nekk xadimu ayi kitaabillah naa nekk liggéeykatu aayay téere borom bi tabaraka wa taala ni mu nekkee xadimu rasul mu nekk ko xadimu ayil kitaab di liggéeykatub téere bi nekk liggéeykatu téere bi e, jeexal ci dundam jëpp ci moom ci jëmmam di ca def na ko yonent bi sallallahu alayhi wa doon waxe nekk alxaalul murtahil waxtu wu nekk amatut ak digganteem ak téere bi amatut yamukaay fu ñu ko fekk mu di ko jàng mbaa mu di ko jàngale mbaa mu di ko waxtaane mooy di ko soññe te fi ko jàng di ci xiirtalaate yit ci ñu di ko jàng di wattandiku lu it ñàkk koo jàng gannaaw boo xamee moom ci boppam moo ci jiitu ndax ak taxawoom téere bi ci jëf yépp yi nga xam ne yu yaram war a def la ba mu ko defee ba mu jeex daf cay dolli di deelee boromam di ñaan ndax mi ngi wax suñu borom naan ko bi jaahil muntaqa ij'al xayaati rihayatal qur'ani zil ayati naan yow suñu borom tabaaraka wa taala maa ngi lay ñaan ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma def ma doon kuy sàmm téere bi sama dund na doon ngir sàmm alquran na doon ngir ñoŋal ko na doon ngir taxawal ko na doon ngir taxawu ko loolu bi bi mu ko ñaanee it daf caa def la nga xam ne lépp mën na ko kon jëkke ci am njàngale njàngaleem alquran ci boppam njàngaleem xam-xam mi nga xam ne mooy sàmm alquran ji di ko ñoŋal waaye ci yare loola di loo xam ne lu mu tàmbali la ci nekk koy gërëm teel ca sóobu lool suñu borom defal ko ca tawfiq gu réy gamu ko ca defal ba nga xam ne xamees na ne ak sëñ Mbàkke moor Anta Sali may gu ga ko yàlla may gépp teewul mujjoon na la ëpp ca daara ja gënoon ne nim sewoo moos sëriñ bi di leen jàngal ngir li ko suñu borom tabaaraka wa taala jox ci ilmu laduni yi kon mu moom ci jëmmam mu jëkk koo jonjoo jeexal ci dundam gépp jeexal ci ay waxtoom def ci it am koomam ba mu jeex euh, def it waa alquran ñuy waa këram jaboote leen ñuy ak njabootam mu digali képp koo xam ne yaa ngi koy déglu te di ko bàyyi xel ne alquran mooy téere bi na nga ci jàpp na nga ci moy nanga ci sax kullu muridin bi yaluusu fal yudim tilaawatan li gayri zikrin xadru sin kullu muridin bi yaluusu fal yudim tilaawatan li gayri zikrin xadru sin képp koo xam ne ci man la wéeru ci man la yaakaaram di dellu si man seexul xadim digal naa ko na sax ci téere bi na sax ci téere bi kon téere bi lu dee si sax la waaye du lu dee si jàng weeru koor bàyyi ko weer yi ci des du lu dee si jàng ren bàyyi ko déwén du lu dee si jàng tey bàyyi ko ëllëg waaye sëriñ bi moom ndigalam mooy fal yudim tilaawatan li gayri dikrin xadru kon dafa digle ne téere bi nañ ko saxoo xamle yit ne dara jarul ñàkk jàpp ci téere bi wala ñàkk koo jàng wala ñàkk koo jàngale wala ñàkk koo dund ndax nee na nit tooñul boppam tooñ boppam gu gën a rëy ñàkk jàpp ci téere bi zalama nafsahu allazi lam ya'tasim bil urwati al wusqa allati la tanfasim nee na kon ki tooñ boppam dëgg mooy ki dox digganteem ak ki dox diggante boppam ak téere bi ci jàppul téere bi jëfandikoowul ay ndigalam ndax xamul ne fa innahu lxurwatu lwusqa fa mumsikuha yuhdaa wa min jumlati lxusraani qad usima moom day mooy ulwatul wusqa mooy buum gu dëgër gi dul dàgg dox diggante suñu borom ak jaam ñi képp ku ci jàpp dana jub te dana mucc képp ku ci jàpp dana jub te dana mucc kon loolu la ñu yonent bi sallallahu wa sallam waxoon ne man jaalahu amaamahu qaadahu ila aljanna wa man wadaahu waraahu saaxahu ila annaar aw kama qaala alayhi salaatu wasalaam yonent bi wa sallam téere bii di alquran képp ku ko def muy sa imaam ne ci sa kan teg ko ci sa kanam di ko roy kon di jëfe ay ndigalam di wettandi ko ay tereem alquran dana ko wommat ba tàbbal ko aljanna waaye képp ku ko bàyyi ca gannaaw jëfewut ay ndigalam bàyyiwul ay tereem waliyaasu billah alquran dana ko jiital di ko sañaxal ba tàbbal ko sawara kon mooy téere bi nga xam ne moo mat a jàpp sëriñ bi di wax ne wa man yamil anhu fi l awqaati munasilan fa innahu siina ama yatlubul karama mooy téere bi nga xam ne képp ku ko wan gannaaw képp ku ko dëddu euh, képp koo xam ne jàpp ko kooka moo wàcc boppam yoon wa mooy it mucc ci la nga xam ne mooy ak njub wala mooy ngëneel kon euh, muy mu soññee ci bu baax a baax ci taxaw giñ ci war a taxaw ak jàpp gi nga xam ne warees na ko cee jàpp di xamle moom ci boppam euh, ak jàppam ci di waxit it ne laytee nit a jàpp ci mooy walhiyaasu billah xanaa ku iblis soo rek nee na jàpp téere bi moom e, lii tey nit a def ko lenn rek la amutub yaareel mooy iblis rek kay tey jàpp ci téere bi fa man la lam yakuni bi bihi saata masukin faqad gaadahu iblis man lam yasal xibba nee na nit iblis iblis woo mat ko rek mooy tee mu jàpp ci téere bi moo tax sax dafa ñuy wax ne na ngeen xam ne àddina ñaari wéttal rek a ci am ñaari wéttal moo ci am muy alquran ak seytaane nit mën ta ñàkk wéttal te ñaari wéttal moo am muy alxuraan ak seytaane képp ku wéttalikoowul alxuraan jërul ñu koy laaj seytaane la wéttalikoo yal na alxuraan di suñu wéttal man lam yakun yunisuhu alquraanu fa innama munisuhu seytaan man lam yakun yunisuhu alquraan fa innama munisuhu seytaan kon ñaari wéttal rek moo am muy alxuraan ak seytaane yàlla na alxuraan di suñu wéttal waaye ku alxuraan du wéttalam seytaane di wéttalam bi di wax ne kon eh, nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax te jàng ko te jàngale ko te yar ci njaboot gi ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam diglee woon ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne woon addibu awlaadakum ala salaasati xisaal xubbu nabiyikum wa xubbu ahli baytihi wa qiraati alquran na ngeen yar njaboot ji ci ñetti jikko na ngeen leen yar ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ngeen leen yar ci bëgg njabootu yonent bi te kenn jiituwu ci ñi yor risalatoon bi doon njàngaleem mi waaye na ngeen leen yar ci bëgg alquran ci boppam kon mu digaloon ñu yar njaboot ji ci alquran lépp luy xememteef fit moom yonente bi sallallahu sallama mu wax ne mi ngi ci jàpp alquran lépp luy wañ sa ak lorit mi ngi ci wan gannaaw alquran ak dëddu ko te loolu di lu tiis ci moom di lu metti ci moom ba tax ak la yërmandeem jëy rëy rëy mu jàmbat loolu borom bi tabaraka wa taala jàmbatiin wu méttee métti ne buur bi njaboot gi dey wan nañ gannaaw alxuraan dëddu nañ alxuraan loola kon nekk lu metti ci moom lu rëy ci moom ndax xam nga mu xam la nga xam ne moo tax moo ca nekk moo tax sëriñ bi sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu di wax ne alxuraan day na ngeen xam ne dara taxul suñu borom tabaaraka wa taala wàccee ko lu dul ñi di ko jëfe kon nag na ngeen koy jëfe nee na alxuraan jii bu ko suñu borom dee wàccee dafa bëgg ñu di ko jëfe bu suñu borom bëggee ñu di ko jëfe nag bu leen ca kenn man kon yéen la ngeen man lépp na ko ca def fa innahu subhanahu ma anzala illa li taamala bihi fa taamil kon suñu borom tabaraka wa taala dara taxul mu wàccee alquran lu dul bëgg ñu di ko jëfe kon nag nangeen koy jëfe gis nga moom lépp lu mu digle moo ca man lu mu digle moo ciy jiitu ndax bi mu waxee ne alquran suñu borom daf ko wàccee ngir ñi di ko jëfe dafa wax ne axasa kaatiba haasi al-uruufi kitaaballahi tabaraka wa taala bi waasitati qawlihi xusu ma ataynaakum bi quwwa xusu ma ataynaakum bi quwwa nee na man sëriñ Touba day na ngeen xam ne ni ma jàppe téere borom bi mooy li borom bi wax ci téere bi rek noonu laa ko jàppe suñu borom dafa wax ne xusuuma ataynaakum bi xuwa lii leen lii leen seen borom jox na ngeen ci jàpp seen fukki loxo na ngeen ci mooy ak seen kem kàttan nee na man it kon noonee laa ca mooyee noona laa ca jàppe moo tax sax jàppin wi ma ko jàpp eh, rëy gi mu rëy ci man moo tax nee na ku may jàppati bala maa jàppati nit damay xool noo defanteeg téere bi